monsieur le maire Talla Sylla ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay maireu ville bu Thiès euh, coronavirus dugg ci Sénégal boobaak léegi am na ñaari weer ci tey euh, foofa fan la mbir yi toll. lu jëm ci wàllu feebar bi. ñëpp xam nañ ni euh, njëkk na dugg Thiès. amoon fii euh, ñu mu laal waaye nag ci njàmbarte wu ñi nga xam ne ñoo yore wàllu paj mi ak ñi yore kaaraange gi ak ñëpp ñi ci dugal seen loxo euh, bay waxtaan ak euh, askan wi di leen wax yi ñu war a def ndigal yi ñu war a jëfee ak li ñu war a moytu boobaak léegi vraiment ñu demoon ba mu jóg fi waaye ñu toogaat ba mu yàgg mu mel ne lu ñëwaat mais ñëwee ci anam boo xam ne li ñuy wax transmission communautaire la amee ndax ñamu koy ñamuy ñamu dal ken xamul fu ñu ko jëlee ñu jot ci njëkk ci ñaari taalibe am ci keneen am ci ba ci ku am ci ku ci faatu mais ci faatu moom ci këram la nekkoon demul woon fenn ndax dafa jagadi woon demul woon fenn maanaam dañ ko ko mhm. mooy wane ni euh, li ñu santaane ne ñi toog farata la ndax kooku nga xam ne moom daa jagadi woon di kilifa nekk ci këram bu nit ñi jógul woon dem ah ne ay ay ata ngi ni moom génnul foofu euh, léegi su su ko su ko dalee ba mu génn aduna mooy dañ ko ko yóbbul mooy nit ñi dañu war a toog alors loolu daal mooy li nga xam ne moom moo fi xew waaye nag gis naa ni euh, ñi a nit ñi maîtriser nañu liggéey bi maîtriser nañu leen bon te seen situation aussi mu ngi dal xel. alors euh, tey ñaata cas ngeen toll officiellement. waaw tey xam nga boo koy wax mooy ka yoo xam ne la yu bees. yoo yoo am la muy toll si ay ñett. Euh, ñoo xamante ne ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi faju bon maintenant euh, ñett yooyu bu ma la waxee mooy côté ñu trouvé woon ci côté communautaire. mais amoon na di nga te am ñeneen ñeent ñoo nga xamante ne duggoon nañ ci. te ñooñu doon am ay ka contact. am na bis sax mo njuumte bu amoon ci yëgle ba. ba moo tiitaloon ñu bëri ndax dañoo jëloon cas contact yi yi boole ko ak euh, ñaari communautaire yu amoon ba mu mel ne juróom-benni cas euh, de transmission communautaire moom moom moo moom moo amandi woon lool loolu nag euh, xaw xel yi xawaat na dellu si waat donte loolu rek déjà ëpp. alors yan matukaay ngeen jël balaa jàngoor bi di fa dugg ak bi mu fa duggee ba noppi ngir aar askan wu Thiès surtout yow lu la ñeel yow mi maire bi. waaw xam nga bi ñu bi mbir mi xewee li ñu njëkkee def mooy taxawal benn comité boo xam ne dafay saytu tey jëf ñu ko donc de veille ko yaatal yaatal ko ndax dèjà ki ñu jiital rek dèjà eh, soxna la boo xam mi ngi tudd Ndeye Soxna Mbaye bokk ci société civile euh, dajale ci nag ay délégué de quartier yi imaam yi euh, euh, sëriñu daara yi yaayu daara nu gox yi euh, dajale ci étudiants yi nekk ci juróom-benn université yi nekk ci Sénégal te dëkk Thiès mais boole ci ñi nga xam ñooy ASC yi ak yeneen acteurs communautaires yu ne ci dëkk bi éclaireurs yi ñoom ñëpp waaye nag surtout nag ci kaawu Thiès ñu dajale journalistes yi xamal leen ni woowuñu leen ngir ñoom ñu jottali xibaar mais dañ leen doon woo ngir en tant que waa Thiès yi ñu doon ñu joxe seen xalaat ci nan la ñu mën a def ba mën a jàkkaarloo ak mbir mi ak léegi ñu ngi def altine ba alxemes diggante onze heures ak midi benn émission boo xam ne xeex coronavirus la tudd ak ville de Thiès ak Sénégal euh, boo xam ne ñi ngi dañ koy synchroniser muy dawandoo ci rajo yi am Thiès yëpp en même temps donc loolu nag day tax ñu gën a mën a jot nit ñi man leen a jottali li nga xam ne mooy ndigal yi ak ak li nga xam ne mooy tere yi te boobaak léegi gis nañ ni mi ngi am njariñ ndax euh, saa yu ñu masee jël ay ay ay dogal di nga gis quand même ne ci biir dëkk bi mbir mi yaatu na fi ndax day fekk àgg na ci ñoom donte dina am ñoo xam ne du ñu respecté yëf mais loolu fépp ci Sénégal euh, maanaam li ci ëpp ñu ngi ci ñu ngi ci lool te yaakaar naa ni déggoon ngeen fi tamit ñu wax ne su fekkee bëgg nañu euh, arrêté feebar bi dafa doon baax benn autorisation yooyu nga xam ne ñu ngi leen doon maye ci gouvernance yeeg préfecture yi nit ñi mën a euh, dem fu ñu bëgg autorisation yi waxoon nañ leen nañ leen dindi ndax nag comme feebar bi day jaare ci nit di dem léegi nit ñi toog nekk farata boo joxe ay nit autorisation pour ñu déplacer wu dafa mel ne yow ci sa bopp yow yaay déplacer feebar te loolu nag dafa leeteel nañu ci wax ba nga xam ne nit ñi tey jii euh, loo xam ne ci ñetti dëkk la yemoon ñetti région la yemoon tey dem ba ci fukk ak lu topp loolu wane na ni kon déplacement yi am na ci wàll beneen ba ca des mooy euh, ñun ci suñu bopp fii fexe nañu ba identifier ne xale yi nekk ci daara yi bu ñu toogloowee ñëpp ñoom bu ñu toogee suñu leen dimbalul dañuy lor ñu sos waañu daara waañu daara bañ koy tàmbali dañ ko tàmbalee ci ñaari junni taalibe ab ba yegg ci tey ji fukki junni ak ñett ak ñeenti ak fukk ak juróom-ñeent taalibe yoo xam ne ci chiffres yi ñu mujj am jox nañ leen ñu xéewlu te loolu ñu ngi koy def bis bu nekk euh, fii biir Thiès loolu nag gis nañ ne am nañ njëriñ ndax euh, ñaari taalibe yi mu jot a dal euh, daara jañ ne woon dalu leen donte isolé nañ leen ba xool leen kon mooy wane ne jëlewuñ ko ca daara ja ci biir dëkk bi lañ kon wane na su ngeen bàyyee taalibe yi ñuy defarle ci dëkk bi loolu mën nañoo dugg ci kër jël ko fa yóbbu ko ci yeneen i kër loola nag kon tey teye leen ñu toog farata la jàppale leen tamit ci toog boobu du leen lor voilà loolu boobaak léegi nii ñu ngi ci lu mel noonu. bi mairie bi moo ko yor. waaw mairie bi moom ñun ñoo ko yor donc mais xam nga man ku nekk rek am nga ay am di jàmm am nga ay xarit yoo xam ne dañ ciy dugal quand seen loxo waaye bu ñu sañoon nag mbir mi nga xam ne bis bu ne lu jege ñeenti millions ñu def ko ci ngir aar dëkk bi luñ ne diis na diis na diis na buñ ko deful woon mooy gën a diis ndax mi bu fekkee dafa dem ba yaatu moo gën a jafe fuuf donc te dañ ne fagaru am na fi ñoo xam ne euh, ñu ngi nekk yore ay entreprise yore seen bërëbu liggéeyukaay yu am solo am ay moyens ñoom ñëpp woo nañ leen ne leen nañ dugal seen loxo ci yëf yi buñ ci dugalee seen loxo dina sàmm dëkk bi te sàmm dëkk bi ñoom ci seen bopp mooy sàmm seen liggéey loolu farata la loolu farata la mais xam nga ñi politique aussi euh, au début daanañ jël ay ay xéewal di yóbbu ci koñ yi xam nga woo ñun bu ñu sañoon ñoo ñëpp dañ doon ñëw barkeelu ci yëf yi waaye xam nga comme taalibe moom du wote xam nga en général ñiy politique du ñu am tendance di bàyyi xel yooyu te mbir mi du du lépp àdduna mooy affaire ay voté ki élection ak politique dafa am loo xamante ni te ji feebar la dugg àdduna bi yëpp kenn ku ci ne am ci wàll nit ñi dañu war a benn moment fàtte yenn yi te ko ci suuf te xam ne dañu war a réagir non plus en tant que ay homme politique wala yooyu mais réagir en tant que doomu aadama kenn ku ci nekk war a fexe nu muy sàmmee moromam ñu daan wax ne nit nitay garabam fii lañ ko gën a soxla taxawul ni ñu war a taxawee buñ ci génnee lii di nga dégg ñun la nit nitay posenam te loolu baaxul nit nitay jàngoroom loolu baaxul. dëgg la alors loolu moo tax nguur gi aussi daal di initier benn plan de soutien jël ay ndimbal euh, jagleel ko euh, njaboot yi mu jàpp ne euh, ñoom la yëf yi gën a laal yow ndimbal loolu ndax ceddale gi cees jot na ci wàllam ak itam ndax lépp jaar na ci yoon. waaw ñun li ñu mën a wax fii mooy xam nga Thiès moom ville la dafa am ay commune ci biir mu mel ne Dakar mel ne Pikine mel ne Rufisque mel ne Guédiawaye mm-hmm. ñooy gën a intervenir ci loolu ñun xëy na cër ñu am ci comité départemental bi may nañu ñu bokk ci ñiy saytu mbir mi te bu fekkee ne ñu ngi dégg nañ ci saytu bi maanaam dinañ fexe ba lépp leer alors léegi ci biir loolu nag euh, dafa am lu ci mat bàyyi xel ndax ñi nga xam ne ñooy xelal kilifa yi bu kilifa gi jëlee dogal boo xam ne bu baax la maanaam jàppale doomu aadama yi nga xam ne président destiné ko loolu moom lu ñëpp rafetlu waaye jëfe ba ca suuf dafa am anam buñ ko tërale boo xam ne am na lu mën a jur mooy dañoo ñëw koñ bu nekk ñu taxawal fa benn sous comité de siblage Euh, nga xam ne dina am délégué de quartier am imam am bàjjenu gox am ñeneen ñu nekk ci gox ba ñoo xam ne ñoom ñoo war a tànn ca koñ ba waaye xam euh, ne ñoom la ñu jagleel yëf ñoom ñu war a tànn téeméer te fekk koñ ba xëy na boo demee am na téeméer ak juróom fukk yu ko yeeyoo léegi maanaam coow lay am ca koñ ba maanaam day tas koñ ba te loolu ñu koy gis ci terrain bi alors xam ne man moom laa jàpp ne moo gënoon mooy bu ñuy sant ñooñu ci gox ya bu ñu leen sant ñu tànn ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox ñoom dañoo waroon tànn ñi ko yeyoo bu ñu tànnee ñi ko yeyoo yéegal xam nga tey boo demee ci niveau départemental wala régional ñoom mën ñoo am ay xarala yoo xam ne mën na leen a may bu ñu ko jëlee ay jumtukaay yu mel ne facture courant jël facture ndox jël affaire ñi am téléphone et cetera bu ñu leen croisé dinañu mën a xam ñen ñoo ko gën soxla ci biir ñoom ko defee mën nañoo tànn ñoom nit ñi bu ñuy jotee joteeg benn maire wala joteeg benn préfet wala joteeg benn gouverneur wala benn président mu gën a woyof kër koñ boo dem ñëpp jote xam nga loolu li muy bàyyi fii mooy feebar bi mën na fee génn waaye bàyyi fi loo xamante ni du baax ci dëkk bi voilà loolaa waral ñu waxoon ne bu ñu sañoon comité de ciblage yooyu kenn ku ci nekk day seet ña ko yeyoo bu ko defee su yéegee bu amee ñu des ñoo xamante ne lii ñu joxee ci kaw nguur gi te ma matawul ñi la ca des nag ñu ne maire yi jóg leen euh, entreprise yi jóg leen partenaires yi nga xam am nañ leen bitim réew ñu leen jóg leen bu manqué ñu delluwaat ci président ne ko yokkal sax d'accord alors ñaari weer ci tey euh, coronavirus dugg Sénégal noo gisee yori doxalin bi ñeel nguur gi. waaw en li ëpp quand même war nañoo rafetlu loolu ndax jóg nañ ba ñu waree jóg taxaw nañu boobaak léegi di won nit ñi li ñu war a def vraiment te loolu aussi ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu te ñu ngi koy rafetlu saa su nekk waaye xam nga loo gis aussi dina am ay rëq-rëq te du ñàkk ay rëq-rëq am na ci yoo xam ne mat nañoo euh, euh, ñu ñu saytu ko xool ko bokk na ci yooyu euh, li nga xam ne dañ koo may nit ñenn ñi ñi nga xam ne dinañu am possibilité am ay lu leen di may ñu dugg fii a génn di dem te ñu toogloo ñëpp maanaam toogloo nit ñi ba pare joxe autorisation pour nit ñi dem autorisation yi dafa mel ne autorisation demal demal wàlle ji wala demal ñu wàll la. waaye am na ñoo xam ne liggéeyee tax ñu yittewoo ko ñu mel ni taskatu xibaar yi. waaw mais ñiy gàmm ak ñiy raas dem bokkuñu. dafay am ñu bëri ñoo xam dañuy jog ne dañu gàmm ji fekk dañuy raas yi dem. loolu loolu mooy li xew c'est-à-dire que tey nit ñi ki nga xamante euh, liggéey moo ko tax a jóg te muy dëkk ah léegi moom ci boppam am am na matukaay yu ñu wax daf leen a jël su leen jëlee dina xëy moom du wàll kenn parce que kenn ku ci nekk tey ji soxna da ngaa war ne man mii maa am maanaam xoolal bul sax soupçonné sa morom yow soupçonné sa bopp yow neel man mii maa am léegi nan laay def ba du ko jox keneen kenn ku nekk bu amee attitude boobu taxawee noonu gisee noonu mooy permettre nit ñi mucc waaw mais bu fekkee ne benn da ngaa wane ni gëmoo ne am na wala nga ni sama yoon lu waa hmm. waa waa Thiès yëpp xam nañ loolu waa Sénégal xam nañ maa ngi fii parce que bu fekkee ne yow da ngaa def loo nit ñi daal da nga cay sax demoo fa sama kër ne ne wax nañ loolu xam nañ ko sama kër demuma fa te te ba keroog covid 19 fi jóg do sama tànk dootu fa teg loolu loolu loolu loolu leer na xam nga parce que loolu moom nit ñi xam nañ ko maa ngi def loo maintenant Euh, ci ci biir cadre boobu autorisation yi nga xam ne préfecture dañu ko jox ñun mairie Thiès mais dama leen delloo dama leen delloo dama remercier préfet ba pare delloo ko hmm. wax ko ni wax ne ñun suñ fekkee ne ñun dañoo bëgg nit ñi toog mais ñun suñu bopp ñoo war njëkk toog mais buñ la gisee yow fu la neex nga dugg fu la neex nga dem ah saa yow yaa ngi dëkk dem dëkk dëkk tey bu la neexee yaa ngi Louga bu ginnaaw suba yaa ngi Dakar man am na ay liggéeykatu bu ñu nit ñi góorgóorloo tuuti bi léegi mu jeex xam nga euh, soxna si toujours ñu wax ñaan gi mais pour man ñaan gi nangu na ba pare ñaan gi ni mu nangoo mooy njëkkewul Sénégal parce que nit ñi nit ñi ñoo ci des mooy am taxawaay ak comportement boo xam ne cest dire que dina dëppoo ak li situation bi laaj mooy nga nangoo xeex sa bakkan tuuti ah bokk na ci taxawaay yu ñu war a am euh, sol masque euh, Thiès fu ngeen ci toll ndax yéen a ngi ci góorgóorlu surtout waa association yi nga xam ne ñoom la tey ñoo nekk ñooy association tailleur waxtaan ak ñoom pour vraiment ñu defar ay masques yu bëri te vraiment waa Thiès nag gàcce ngaalaama ci côté boobu ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax euh, ba nga xam ne tey jii moom duggee ci mbedd Thiès di nga gis ni nit euh, te am ci ñenn ñoo xam ne sax vraiment jaayuñu ndax ñun bis bu ne ñu recevoir kuréel ay association ay citoyens yuy ñëw vraiment di indi ay masques ci mairie bi pour ñu koy mën a distribuer nit ñi mm. loolu nag euh, lu ma rafetlu la mooy wane ni quand sensibilisation boobu nga xam ne nit ñaa koy def au niveau national comme au niveau local mi ngi am njëriñ. sensibilisation bi foofu sax Thiès euh, dégg nañu ne yaa ngi yëngu bu baax a baax ci wàll woowu nit ñi tey dañoo mel ni ñu xaw a fërantal jàngoro ji wala xamuñu dëgg-dëgg li mu mën a jur nii loraange ndax euh, Thiès am na tuuti lu nu rawee yeneen gox yi vu que yow yaa ngi askan wi. waaw bu ma sañoon de sama collègue maire yëpp bon du ñàkk am na ci ñoo xam ne vraiment ñi ngi jël def ay jéego yu am solo mais moo sañoon ñëpp dugal ci seen loxo parce que xam nga bu fekkee ne président dafa jël dogal tamit o niveau national yëf yi ci territoire bi lay amee maanaam ci gox bi parce que nit ñi ci gox yi lañ nekk maanaam ñiy feebar ci gox yi lañ nekk ñiy wér ci gox yi lañ te ñun ñoo nekk ak ñoom donc loolu dafa important que euh, ci cadre sensibilisation bi ñu joué loo ci rôle nit ñi nga xam ne ñoo am ay cër ci gox que ci war nañoo jàngate ci mbir mi ne bi am diggante état bi ci kaw ak ñi ko nekkal ci suuf waxuma rek ay gouverneur rek ay préfet yooyu parce que xam nga ñooñu moom da nga leen di digal rek ñu def xam nga ñooñu ñooñu moom dañ dañ leen a tabb dañ leen digal rek ñu def ñii population moo leen fal donc rapport bi nga xam moom la am ak population day doon beneen xeetu rapport boo xam ne je pense que suñu amélioré diggante bi am entre ñoom ak ñi nekk ci kaw état bi dina mën permettre ci cas yu mel nii te ñaanuñu sax mu amati mais en tout cas bu ñu amee ay situation de crise ñu am xeetu taxawaay boo xam ne daañu ko ci mën a. jërëjëf monsieur le maire Talla Sylla amoon nañu mbégte dalal la euh, ci matinalu Rewmi FM fàttali yow yaay maireu Thiès euh, ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëfati.